ay jë kon sëñ Moustapha ñu ñëw léegi ci diggante aji ak Ousmane. waaw bu doon ay jataay yu bari nga fi ñëw kon dañuy ñëw song directement audio yi mais balaa audio yi. Hmm. dañuy ñëw arrière tuuti ci dégg nga viol xëy nga rek gis ñu revue de presse Ousmane Sonko dafa viol Adji Sarr. Hmm. bi nga xëyee dégg loolu nga defal ñu benn analyse ci viol viol viol ba ñoo ñëw ci audio yi ak fi toll. Hmm. waaw ndax gëmoon nga carrément affaire yi. dama teel a dama teel a dellu ci alxuraan. waaw wax ne benn képp kuy jullit. mënoo dëggal audio mënoo dëggal viol mënoo dëggal viol te li charia wax coalition rapport luñ ko. waaw ah, muy lan. ñeent ñu màndu. Mhm. duñ bokk fu ñu jógee. si d'origine bi gis ak ndoor preuve. Mhm. xawar bi dugg ci pay ndaw si. mu wut leneen. Mhm. yàqatan boobaa nag bu ñu waxee te ñu andi ñu màndu. ah nañ def àtte charia. waaye loolu gisuma ko. te li li firnde ne loolu amul ba léegi preuve ba léegi su amoon commencé nga ko kasu tëdd. dëgg la maam ndaw si amagul benn preuve. amagul benn preuve. bu ñu jógee ci wàllu diine nag. Mhm. ñëw ci wàllu ba ci aada li ñu nekk nii. doxinu jamono gi. amul vidéo wala lenn luy certifié ne nit ki violé ko te yàgg naa wax ne. Mhm. ñi tëdd barsàq sax xam nañu ne Ousmane ko violé Adji Sarr. Ah. waaw. ah foo ko teg sëriñ bi. waaw maanaam ku am sa ñaari soxna. waaw. sa nga doxaan nag. Mhm. nekk naa ni tey comme ñëpp. doxaan parce que fi dëkk bi ma wax la benn affaire. Hmm. barke rasulillahi hmm. bu yàlla xew di yi. Hmm. borom jabar yi ñooy gën a bëri ñooy njëkk dee. naa def bu ñoon xëy di rey yi. njaalukat yi borom jabar yi de. bu yàlla noonu tey po jam ñaa jóge nii. kay li ngeen jéggi. ñëw leen. borom jabar yi kenn du jàll. <laughs> sëñ bi déet waay. am na yaakaar ki takk jabar mucc na ci njaaloo léegi. parce que xale jigéen ñi ñoom xam nañu ne. bay doxaan. doxaan borom jabar moo gën a neex. day silenceur ah, da lay may jàmm pour may la yow nga mën a amaat yeneen far d'accord plus moom parce que du dëkk fu nekk la lay woowee tout le temps lay SMS du bëgg di jotee yow bu ñëbbee këram doo ko mën a oot téléphone doo ko mën a SMS boobu temps mu ngi ci leneen bokk la ki yorul dara bokk am sa jot marque marque à la lay def te xale jigéen bëgguñ loolu d'accord kon daal li bëgg a wane foofu mooy ki yor ñaari jabaram teew koo doxaan dama bëgg wax ne hmm. Ousmane Sonko dem na sóot bute waaw mën na faa def lu ne hmm. ba mu def viol. yow dangaa ngaa da ngaa gëm mën na faa def lu ne. sëf viol. d'accord moom loolu wóor na ma. ok déjà moom wax ne dem na fa. waaw dem nga fa dem tamit wax naa ne. Hmm. lépp lu coow li juddu tey ci réew mi. Hmm. bu fukki ñu dañ ñeent dee fi. Hmm. bu toogoon këram du am. bu toogoon këram du am. du am ak feebar bu mënut yor nag. d'accord toogoon këram. xam nga ñu faral Ousmane Sonko. dañoo am benn problème. dañu ne benn dëgg. wala benn defu Ousmane Sonko duñ ko wax. ok lépp Sonko yëwen na. te am nay defoo te am nay défaut défi bi mooy premier responsable politique. Mhm. opposant mhm. bu nekk ci réew mi ñu ne yow la guddi jot nga da te fii képp ku fexe ba sa noonu jot ci sa cat boobu. Mhm. billaahi dana la diri. waaw. Oh. d'accord loolu sax moo ñuy may kon ñu dugg ci audio yi léegi bi ginnaaw bi yëf kii kiiyee euh, ñu commencé nag ay audio di génn. waaw Baye Mbaye MC ñu ni moo enregistré aji Sarr. at mi ngi nii mu yàgg wax ni nañu woote waxtaan mm-hmm. ñu jël xale bi delloo koy mbokkam kilifa diine bëgg naa ñu woo ma ma jox leen audio ñu dégg mm-hmm. at kenn faale wu ko mu xëy juge ma xam jàlla woo ko mm-hmm. bi mu ko wooyee mu génn aji saar daan ni d' li mu wax d' accord waaye dama doon euh, piège sëriñ bi maanaam man la waaye piège la woon bi loolu amee nag ci la audio yi commencé di génn ba ñaar génn na léegi noo gisee audio yi génn après ñu doog a ñëw nag ci Baye Mbaye MC mën nga may benn anecdote bu ma expliquer a ci ñëwal euh, armée ñëwal da nga dem Dakar Bango loolu dafa dëppoo ak lii ma la bëgg a ci ci ci dossier ay Adji bi. waaw ci audio yi génn ak enregistrement yi. waaw Adji Sarr boo ko déggee may wax nga xam ne dafa am kàngam. Hmm. bu maîtriser tappale bu na ci ginnaaw. kàngam bu maîtriser kàngam bu bu maîtriser tappale. da nga nekk Dakar Bango ma comme man. Hmm. ñu dem Dakar Bango suñu première question de confirmation ndeke dafa am fu ñuy wax Mm-hmm. ñoo seen maillot yu xonq yi. Mm-hmm. fu ñuy wax vingt deux. Mm-hmm. ñoo yu jaune yi. fu ñuy wax vingt trois ñoo seen maillot yu set ma maillot vert yi. vingt quatre laa nekkoon ñoo seen maillot yu bële yi. bi ñu demee entrement te ñun mën nañ daanaka deux mille personnes daanaka mën nañ. léegi bi ñu demee bi ñu demee ba ñëw. da ngay bëgg loo lekk. boobu comprendre ko ma ba douze. ma jógee vingt vingt quatre dem ba vingt trois. militaire yi macha allah xam nañu ñoo. waaw maa ngi sol xam nga boo sol tenue ñëppay niroo. si. benn caporal bu ñuy wax Yalmin mu ma caporal bi ba léegi mu ngi joué kër. Mhm. war na jàll sergent mu ne ma kaay boo yow kaay foo bokk mën na ko 24 laa bokk mën na ko fa laa bokk 21. Mhm. maanaam ma fekk comme 21 la fekk mën mu ne ma xaaral mu mu mu sama tubéy ji sama toli bi ba si kaw. waaw sama tubéy ji ma jiital. ndege boo demee entraînement ñëwee xam nga kilo bu ndaw doog simmi waaw mu gis ko man ma lii du 24 mu ma tëll daw dugg jaxasoo gars yi comme dañu bëri ma réer ko mhm. léegi ba mu semaine ñu daje trois jours avant. balaa jeexal semaine bi jeex mu fekk ma vingt quatre ba ma bokk. ne ma booy du yow laa jàppoon démb ma du man de. <laughs> yow ma ko déedéet mënu ma gonful maanaam mënu mu ne sama bi naa ko def nii nii. pour mbéy ma déedéet mënu ma tëll di yow ma yàlla baxana na yow ma ci. ba léegi maa ngi ci ci ay genre lu génne mu lu mu lay. waaw yàlla nattu ma nag. Mhm. avant mu wàcc semaine. ma dem ordinaire fa ñu toggalee añu añu ba daxar baa ngu yëpp Mm-hmm. ma am sama benn bidon. Mm-hmm. dem ci benn am ron benn ron fi ñu dugg di nelaw pour nelaw nga baa nga pour nga nelaw loolu lay jaral. waaw caporal fekk ma ko. fekk ma fi mu waa ji nga dajaloon. waa ji ma dajaloon jàpp ma ñaari mm-hmm. ma ne ko man. ma tëdd. waaw di nelaw. te lu faral gën a dëri la. gaa ngi jàng saa ko jàng. man naa ngi tëdd fii. mun ma léegi ma laaj la ma ne ko man ma kii yow loolu de yow ma <laughs> yaa ngi doog a nangu. ma maa ngi doog a nangu. waaw loolu de Adji Sarr. waaw. dañ ko enregistré. Mhm. waxoon naa benn waaye ne ko même audio bu génnee muy enregistré muy ay zaar. dana taxaw ne du man waaw boobaa xam nga lu muy bi. Mhm. pour mën a jàll projet. Mm. dañ lay jàngal ci armée. mais parce que am na ci loolu nee nañ du moom fi ñu naan expert mu nee kooku du aji bàyyi mbay ko ci dolli. bàyyi mbay ko ci dolli. waaw léegi léegi du day indi jiixi jaaxal ci juge bi. waaw léegi li tax mu indi la explication bële. waaw bàyyi mbay am ci moom moo war a xam ne bu maanaam. malaayka yi gar doomu aadama yi mhm. kiraam ak kaatibiina mhm. bu ñu ñëwoon jël vidéo bi teg ko ci asamaan si ñëpp jën moom mu wër na Adji Sarr nekk nii mooy wax mhm. sax du tax juge bi gëwuma ne danga tax juge bi doy loo wax jooju waaw ah waay moo tax ñu bari nee nañ juge bi mu ngi koy teg ci yoon te ñu bari jàpp nañu dina doxal yoon xam nga kon audio yi jàpp ni preuve la mën a doon ojo moom ojo moom ci yoon ojo yi ñu dégg maanaam maanaam ojo yi nga dégg nii hmm. même bu dee preuve xam ñëpp xam nañ Adji man xam naan Adji Sarr la yow xam na Adji Sarr la waaye mim na ko. waaw léegi bu ko mimee léegi juge bi muy def. dem procès procès rek. mënuñu ko ci condamné. même am ñu ne Ousmane Sonko jër dootu dem procès. waaye euh, oh, gis bi procès mu am certificat ba certificat médical ba moo leen taxale bu yàgg. waaw gars yi bañ. mooy ba ma waaye dama jàppee dama fa man ko du man. waaw waaw waaw. ñu continuer fekk fi nii ay dañ ko fekk muy nelaw mooy di wax audio di tudd ay nit ñu ne ko yow la mu ne du man. kenn mënu ci daal. bàyyi mbay im ci daal li ma ko waxoon mooy. Mhm. bët bu set bu génnoon mille audio mhm. teg mhm. moom dana mujj sax moom réccul sax mu génne ko mhm. ndax dana dem bañ koy tudd di ko ñàkkal de di ko xeeb ci yoo xam ne sax dëgg jaru ko d'accord parce que bu ñu fàtte ne boo waxee ñu ne non noo moo def ba dëgg ba dëgg ji leer nañ ko def waaye yow ki bëggul dëgg noo ko joxee dëgg ba mu doyloo ko certificat médical bu dem ci médecin ba ne la viol amul juge bi woo ko mënu ko violé ko waa waaw ndax war nañu woo keneen waruñoo dem dossier bi Ah, kon jàpp nga ni daal kon gars yi am na fu ñu bëgg a dem. dama ne gars yi projet la ñuy dem li ma la wax ne bind ko tële mooy. Mhm. projet. Mhm. ala kuleel pour mu am ndax gars yi bëgguñu condamné Ousmane Sonko duñ ko mos a tëj. maanaam duñ ko mos a tëj laa wax mais dañ ko condamné avant condamnation bi nag dañ ko jéem a humilier wan àdduna bi ne mu ngi nii naan dafa jub moo gars yi ñuy yem dañ ko juñ fi yoon maanaam taxaw tiisante boobu yow sa nangoo ko ak jigéen waxuma la man waxuma la Ousmane Sonko. si ñoom nag. humiliation boobu lañ soxla ci Ousmane Sonko. d' accord d' accord léegi bala dina ñëw ci Baye mbay mi ngay dégg ak enregistrement ak jeeg wax ji léegi Ousmane Sonko sànq doon ko junjunu est ce que dina nekk candidat. léegi foofu laa ñëwee mooy. Mhm. suñ ko condamné su demee procès ñu euh, procès ñu condamné ko. Mhm. da koy day yàq casier judiciaire am du mën a nekk candidat wala. ñaar yi lañ koy toppee. mooy. Euh, li may wax nii mbaa mu ngi des ci internet bi. mu ngi ciy des waaw. li ma gëm mooy. Mhm. bis bu projet ba tiisante gi am. du man ba bi ko yaa ma def nii yaa ma juutal fii ak sama tànkil fii. wax ju ñaaw jooju lañ bëgg. su paree. dañ naan ko Adji Sarr yow da ngay fen kii violé wu ah ah fekk wax ju ñaaw ji tas na. boo amul sax sax ñu condamné na Adji Sarr encore mais bu ñu fa jógee nag Ousmane ko ñaari yëf. trouble à l'ordre public. ak appel de instruction xaw ah, ma. defoon bi ko wooyee. yooyu noonu. waaw xam nga nee na kenn mënu jàpp. waaw waaw loolu mu ci kanam. jàpp man na mën nañ ko gàllankoor boobaa ñu wan ñëpp dee nag justice mhm. am ci dëkk bi waaw ah, ñu crédibiliser euh, justice waaw dàq viol bi dëppoo ñëpp na viol amul waaye nag moo defoo moo woote woon fii turu ordre am na ke bañ koy jàpp mhm. tey jii may wax ak yéen nag moom it woote woon na pour xel yi wàcc génne xew am am am ba fukki bakkan ak ñeenti dee fi boo boo moom day nekk coupable te li ma la wax nii mhm. ku mu neex nga taxawee di ma ba ci kanam te su boobaa faaw gan gaa yi wane ci procès bi ni Adji Sarr kat waa ji xéewlu na waaye viol amul. Ousmane Sonko ne lenn rek laa gëm man nag mooy tax bokk ci élection yi. Hmm. coow am ci dëkk bi xeex am. Hmm. kilifa yi si mu taxaw Mbàkke ñaan. Hmm. Macky Sall. sa mbay si moom suru ñaan Macky Sall ñëpp ñaan. ñu ne nañ ko bàyyi ma dem bu lii amul. Ousmane Sonko moo la gën a xam ne. conditions yu difficile ci la naa demee élection. ah oui ah moo gën a xam loolu de. pourtant moom teeloon naa def kan nee na yàlla képp moom moo mën a tee mu nekk candidat. waaw waa xam nga yàlla képp ñu mag ñi mag ñu baax ñi moo leen moo leen jigéen ci yàlla. Mm-hmm. waaye dama ne dossier bii. Mm-hmm. Ousmane Sonko du ci génnee ak nooy lié xam loolu la ñu wax. waaw pax mu sa lu amoon na bu yàgg te demoon na certificat médical ba. Mm. ñu ne ko soxlu lu doyul. mais kon lu gaay nar. d'accord léegi euh, affaire bi mu génnee xam naa fa la ñuy mujjee Baye Mbaye MC ñu bari tuumaan nañ ko ni da doon doxaan ndaw si waaw. am ñu ni daroon sarmi ndaw si daf ko bëggoon a takk ba ndaw si mi ngi wax ci biir naan wax yi dafa cohérent wul ndax su fekkoon Baye Mbaye ñii muy wax nii dañ maa tëddee tëdd nañ ma lii maa ko wax mhm. kon du ma bëgg takk ndax nit ngay ñëwee bëgg takk jigéen nga xam ne ay góor yu bari tëdd nañ ak moom mhm. ndax da ngay dëppoog ñu naan Baye Mbaye dafa am lu mu seqoon ak ndaw si wala da ngay dàq loolu audio yi moom dama noonu sax dama koy indi fii tekk ñu diglu benn par benn waaw man ba ma digloo première partie ba mhm. jàqoor naa ne bu bu deuxième bi génnee àdduna tukki mais bi mu génnee hmm. dafa cuune ku cuune maanaam aji déedéet maanaam sëriñ bi sëriñ bi mhm. ak maanaam ndam ndam li ma foogoon ne moo ci war a am mhm. dafa des xam lu tax mhm. foogoon naa ne audio bu génnee maa xam jaaw di ma dul woo gaay wañ mooy leen ndax na ma na ma ko digloo waaye bi ma ko digloo en tant que borom xel ma xelaat ne kii moo xëy Adji Sarr moo xëy benn jour tuumaal benn doomu aadama viol waaw ñëpp ne ko du dëgg mu xëyaat ji fukki nit ak ñeent yu teg. Mhm. ne dañ koo tëddee. waaw seize. seize personnes. Mhm. ma bëgg a di kenn nit ka. gëm seize personnes yi. bu waa man man kan laa man hmm. nga weddi lële. gëm seize personnes nga weddi kenn ku ñu wax ne dafa tëddee diw. Mhm. ay genre ne Ousmane Sonko da koo tëddee. da ko violé. loolu nga nga nga gëmoo ko nga xëy un suuf fukki nit ak ñeent wala juróom-benn mu ne ñoom dañ maa tëddee. yow nga ne kenn ki du dëgg waaye fukk ak ñooy juróom-benn yi dëgg la te fukk ñu te juróom-benn ñi yow mii ku ci doon soxnaam xam ne si xam ne dëgg la waaye léegi ak mi juñ sonko viol ñoom tudd ñëpp wóor na leen ak day fen ndax kenn si ñoom nga yaakaar ne am na ñàkk mesure ku day ni di ko jaay muy tëdd ak aji saar nii ne ci xam ne un aj aji mën naa xëy weer ko te day enregistré waat. te day enregistré waat. loolu tamit fokk ñun ñu bàyyi suñu xel. nee na enregistrement yi des na de. parce que Cheikh Bara Ndiaye fa laa bëgg a duggee sax Cheikh Bara Ndiaye nee na 27 appel la te nee na sax fii ak suba ba ginnaaw suba audio Mamour Diallo war na génn. waaw moo tax ma ne la. waaw bu génnoon yéen ma Mamour Diallo ci hmm. hmm. nekk vidéo mu leer ñëpp ne Adji Sarr. Hmm. waaye may la Adji bu génnee du man du teye ñoom dëgg ji ñu bëgg du am. xam naa li nga wax. noo gisee Cheikh Bara Ndiaye ci dossier bi bon ni ma ko gisee daal xam naa ci lenn mooy dëkk bii ñu nekk. Hmm. fii 2024. Hmm. ku yeboo na nga tey. ku yeboo ku nga tey. ci naka li tax mooy ñun ay gor lañu. Hmm. yor ay njaboot. politiciens yi ñun ñëpp a li tax ma ne man nangoo gëm ne ñu ne ñu ànd état bi sàcc nañ fukki ay milliards jàmbur. Ousmane Sonko xaar ba kuufa mooy mu génne sañ a dem suite bute di mangé te lu xaraam ci sharia loolu ku ko mën ñaar yi bi ma ko xoolee daanaka gars yi ñooyam d'accord bul fàtte nag ne mu sax si benn benn waaw laa ilaaha illallaah wa laa ilaaha mhm. maanaam jikko yi ñu ko ñu ko mutti si ñëpp dañu moo ko Alxuraan mhm. man xadis waaw te wóor na la ne mhm. dëkk bi ñu nekk muy Sénégal mokkal fi alquran. Mhm. dégg xadis yi mën na bi ni tere mag ngeen taxu nga jub. taxu nga jub taxu nga jub. waaw te ni ko dénkut junne nag. Mhm. bul ko seddal ak njub. waaw Ousmane Sonko dugg président de la République. Mhm. guddi jot mu sañ dem su bi te démangé kooku boo ko denkee réew mi gëm naa ne moom ñu ngi ko moom ci ñu ngi ko jëlee. ñoo yem. yow loolu nga foog. man su ma xelaat la su ma gëm-gëm. d'accord léegi boo leen. boo ko jaay moo ne. nit boo bëgg xam dénk ko ñaar seqale ñaar. xaalis jigéen. xar sa jigéen Ousmane ak njub gi muy woote hmm. hmm. dem kon taxawaayu Cheikh Baara ci wetam noo ni ko gisee mooy hmm. na xam ne dëgg ju mën a am ki koy jox soxlu dëgg yi te Sénégal yi koy diglu du ñoom ñooy jugé te audio moom na laaj ku ko neex ci droit nekkut cent pour cent preuve d'accord te dëkk bii nag amul sustis parce que bu amoon justice ba am ci mi unité ay usar. koo ñëw teg na ko loxo. mais ci yoon nee nañu preuve boo mën a am pour indi dëgg war nga koo def dem jox ko jox ko yoon. preuve bi xam nga lu ñu ci jublu. Hmm. mooy nga dox bay tombee ci dara ci ay fen. d'accord bokkut ak nit wala téléphone. Hmm. nga enregistré ko sans autorisation. loolu moom loi da ko préparé. d'accord kon nag ni ñu mënee bàyyi bàyyi MC Niass mu ne ci jàmm. Hmm. ñëpp nekk suñu kilifa. justice boobu mën koo seetaan ci loolu mu def muy délit. ah mais Mamour Diallo mi ñuy wax nag ni moo tëgg complot bi ci audio yi dénk ko aji wax. moo tax nee na moo yónnee oto. Ah. moo leen moo ko yóbbu ci médecin ba. Mhm. moo tëgg lépp. Mhm. kon foo koy bàyyi. waaw beneen bi sopp ce que Agisa wax ko dëgg. est-ce que wax te am na ma jaaxal si Agisa hmm. dafa ne Farba Ngom. Hmm. si pas xaw ma. waaw moo bi rek teg. Mhm. ba noppi lim Mor Ngom. waaw mu bàyyi ko xam naa leen ñoom ñaar ñëpp. waaw. waaye léegi boo ne Farba Ngom na son sa pas xaw ma ay genre ko wax lii ma wax nii. Mhm. léegi loolu noo moo tuddee ba jaaree bu nga boole ko ci ñi la tëddee nga ne Farba Ngom son c'est pas xamoo ko. nga boole ko ci biir ñi la tëddee te daf ma wax ji daf ma niru. Mhm. daf ma niru yow ma oo téléphone. Mhm. par exemple tey ma oo téléphone nga am ci benn gàmm boo ma bëgg dugal. maîtrise ma gàmm bi. waaye su ma tuddee tur tey ku mel ni Cheikh Bara tudd kenn kenn rek. après. mën nga jël beneen wax bu ma waxoon ci moom bu ñaw boole ko mel ni wax yi benn digg la fekk demee noonu. Hmm. gaa yëpp tëddee nañu ma. Hmm. mën nañu waxaat ba ci biir ay saa di ko expliquer ñu ko seet ci. Hmm. bi mu amee jafe-jafe mu koy lim. moo tax tëdd nañ ma ñoom ñëpp xam naa leen. audio boobu dafa mel ni appel boobu ak appel bi muy limee gars yi benn. si boo seetloo appel yi. d'accord yow affaire problème bi mu amee ak léegi da nga rencontré Adji Sarr xam. mas na la woo. non non mosuma woo mais am naa nag sama benn xarit bu ko jege bu mu xamante ne bu ko seeti. bu koy seeti sa xarit boobu. am naa benn am naa. ba boolewuñ ko ca liste ba. day bokk ci liste bi moom moom moom jotu ñam ñamut. ñamut moom ñamut. ah yow loolu ah, est-ce que leer na la. seen waaw waaw moom ñamut moom ñamut moom boolewuñ. moom waa ji loolu la wax. waa ji. Hmm. waa ji. Hmm. suma xarit la. Hmm. bi ay jaar dëkkee Saly. fa mu dëkk ci Saly. bu fi ma waxee yooyu ñoom ñaar sama téléphone bu jegee ma wan la. numéro Adji Sarr capturé Adji Sarr ñuy discussion yëpp. lu bëri mën naa ko wax. d'accord bu fekkee ne Baye Mbaye MC kilifa la foo normal ko waaye ñun xam na lu ñu téye am na lu ñu xam de. yéen ñi waaw ah, man ñu am na lu ma xam ne mos benn émission. waaw dinañ ñëwaat. boo xoolee audio yi. Hmm. dañ ko dagg de li ko jiitu. man kay damaa boo audio yi génnee ngay ñëwaat sax. su ma ñëw su ma ñëwaat fii. Hmm. naa la indi audio yi. waaw appel yi. Hmm. ñoom ñaar ñëpp. nee nañ 27 la da nga koy confirmer. ëpp na ko sax. parce que 3 la ñu waxoon am ñu ni 27 la. man ëpp sax. waaw. d'accord Adji Sarr moom li mu enregistré. audio yu njëkk yi yu yi ma waaj a yónnee moom ay genre déglu ko. Hmm. ma déglu ko. Hmm. ñoom ñaar seen discussion. Hmm. audio yi bokk ci 27 audio yi. ah oui waaw ah, bokk kon aji mi ngi enregistré. waaw ah, gars yi ñoo ñëpp ay démb dañuy lekkante. d'accord c'est